asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi man boo gisee daanaka lu jiitu weer maa ngi maa ngi samay kàddu man bugguma wax ci euh, wàllu politique yi ndax li tax bugguma cee wax mooy dañoo àndoon ak Baye Ablaye dem ba muy jeexal ñu jiyoog moom ci mu ne maa waxoon waxeet ñu jàppale Macky Sall mii mu dem ba muy jeexal gis nga li mu indiwaat man ci loolu laa suuri politicien yëpp bëggatuma cee jàppale kenn ndax bëgguma jàppale kenn ëllëg melaat ni li ma gis nii waaye fi mu nekk nii bu démb doon ni tey buñ xamoon ne Macky buñ la falee bëgg a egsi fii lëj-lëj bi mooy mujj am gars yi di yéeg assemblée nationale ki fetal moom wax dëgg loolu moom mënoon naa ñàkk xëy na nag opposition bi ñoo ñoo la tiital ndax itam ah ginnaaw yoo yaa ngi kàttan ak doole ànd ak mbooloo mi te soldat yooyu takk wër la bu ñu doon yu Sonko xamatuñ la Ousmane la ñuy xam te lu leen sant daañu ko def ndax ba ba ba ba nga xamee ne gaa yi ma Abdoulaye Wade nekk na fi booba luñ lu mu santaane woon ci yow ñu def ko bala ngaa wàcc nguur gi dinga ko talaat bu baax ndax ñooñu ñooñu taxaw ci assemblée bi de bu Ousmane Sonko yéegoon bu leen ne dem leen yeew Macky Sall dañuy ñëw yow la yóbbu ndax ñoom nekkaluñ fi kenn ku ne ci pouvoir bi doo nga leen ilif waaye xam naa ne daal man daal bu ma sañoon damay noppi rek seetaan waaye daal léeg-léeg nga gis loo xam ne lii moom soxol day jeex nga xam ne lii moom wax dëgg yàlla mënoon naa ñàkk ndax képp ko doon xalaat ne wote dina am Sénégal rek am dof nga yow bu daan jéem jibal ñu naan eh, dem nañ ci imprimerie diw nangami nangami papier imprimerie diw moo koy imprimerie nambi nangami papier imprimerie diw koy imprimerie ku nekk ñu dina laaj say photo ak di wax naan couleur bi nga bëgg ak naa bu leen niroole ay couleur loolu yëpp euh, mu ne tekk man booba laa xam ne wote moom mosuñu koo xalaat a def mosuñoo xalaat ne wote dina am ci réew mi am na daal leader yoo xam ne en tant que mënuñu leen a effacer ba dootuñu bokk wala ñu indi leen leader bu leen contre carré ba dootuñu am lañ bëggoon ah wote bi du gaawe noonu Karim Wade nag du mbërëm du mbërëm du mbërëm bëgg fal bëgg falu mbërëm kaay ndax murit yi sa baay am murit lawoon woon la sa baay am murit la woon jébbal ki Sëñ Tuubaa murit yëpp laay ñuy nokkee doole ji gis ci réew mi daal opposition bi am ko surtout nag Touba bu ñu indee bu Karim Wade mii samp ko fi ne Sëñ Muntaxa ko fi ginnaaw <laughs> <coughs> waaye <coughs> bu leen ko sax isin de bu ngeen ko isin de di ngeen xam ne wallaay ba si góor a koy bay amul benn sëriñ bi moo ne tey tax Sénégal wooteel nit sëñ bi ko sant loolu moom jax na ci réew mi loolu moom ko ko yaakaar porteur de voix moom ko ko yaakaar gaa yi porté tuñ sax seen voix bopp bay bay porté voix yi keneen bi bu ngeen seet meneen pexe ah, waaye boobu boobu woowu war moom doxul seeti leen weneen sëriñ séeréer gën a xam ne ku ci jiima taxaw ci wàllu diine di wax daan jàppareel diw yow mooma la ñuy baax waaye du tee nit ñi dem def liñ bëgg a def ah, am na ci yoo xam ne yii daal doy na waar doy na waar ba egg ci lool man de wax dëgg yàlla li ma xam mënu koo wax li may gisit mënu ma koo wax waaw ah, waaye fii ñu toll nii daal bëgg nañoo see sénégalais yi diabolise sëriñ si diabolise politiciens yi yeeja samp fi mbër yu bi sàcc yi daaw yi ñu def leen ay nit ñu set ren ba di leen jiital ci am réew te nekkoon sàcc daaw yoo xam ne dañoo jëloon xaalis di wër àddina bi di lekk seeni ginaar di tëdd ci ay cinq otiwaal ñu leen di jox ay maleti xaalis ñuy wër xaalis baa nga ko wala lampour xaalis baa nga fii loolu yëpp fi la ñu fekk loolu yëpp fi la ñu fekk nit ñi defatuñu léegi ku yaakaar ne da ngay nga nga joxoon nit ñi ne diw moom ay diw kooku moom nax nga sa bopp fi mu nii golo golo nekk ci réew mi xam naa ne daal doy na war daal man daal bëgguma wax ci politique ndax xëy na man ni may gisee ak ni nit ñi gisee duñu benn waaye daal gëm naa ni fii nu toll jëm ci kanam bu fekkee sénégalais yi ñoo soxla seenam réew bu ngeen effacé leader yi ci nekk ci réew mi yépp it beneen leader yi génnaat rek waaye bu sénégalais yi soxla seenam réew da ngeen leen ko delloo de. ndax ñoo leen ko joxoon am na ci nag yu bari yoo xam ne mi ngi am a ah, bu ngeen yaakaar ne day continuer du continuer de du continuer de ndax génocide day am na Rwanda France tappale ko ba mu lijjanti ko waaye bu génocide amee Sénégal di su ko mën a lijjanti de te bu ngeen moytuwulee génocide dina am fii ci Sénégal ndax aw nit moom jinax muus moom boo ko dee tànc ba ca koñ ba bu geesoo fii amul fu mu yéeg sa yel lay wokk de waaye dana riñaan xam na ne atténuréel nag waaye il mu wokk la nga may ko yoon mu jàll dem waaye xam naa ne daal ni ñuy doxale nii daal moom wax dëgg yàlla ah, doy na waar daal fi mu nekk nii daal kenn xamut li ñu nekk nii lan lay niru xamuñu nag ak nguurum donoo la bëgg a doon xawma ak dé ak démocratie la war a bëgg doon xawma ak doole karaasi la bëgg a doon ndax ak dem ak say gaay la bëgg a doon wala ay dictature la bëgg a doon waaye fi ñu toll nii daal moom ah baa doola daal mu neex te bokkal caaf ndax day tibb ak ñaari loxoom te du boxam da koy lump yan yàlla ten di jib ten sellal Euh, wal fajiri TV ku xam histoire Seydi Lamine ñas ca ba muy départ Walf Quotidien ak léegi euh, buñ demee ba ne tëj nañ ko dula la bett ndax Walfajri moom moo ne mooy rajo askan wi lu naqari askan wi lu mën a doon foofa lañ koy dem waxee te lii naqari askan wi nguur gee koy def ba Ablaye Wade yi bërik Abdou Diouf wal fajiri ngi woon ci côté Ablaye Wade ba Macky Sall di bërik Ablaye Wade Macky euh, wal fajiri nga ci côté Macky Sall mu daan fa dem di waxtaan di ko gis ah léegi biñ demee ba léegi nguuru ma ki war a terminé it fa ma ngi ca beneen côté ndax moom nee na askan wi lay àndal nguur gu nguur nguurug àddina nag su fekkee ni ànduloog moom comme ni ko sëñ Mamadou Baaw di waxee waaye da ngay diile da juuyoog moom a ah, jamono ju nekk da ngay am ay problème man nag Cheikh ñas moom fenn rek laa ko la la la laa jooyooyee ak moom maanaam toog ci écran bi dagg sa da maanaam dagg sa identité ne nekkatuma sénégalais loolu moom mën naa jur lépp lu ñu doon jox ab ñu xañ la ko ndax ay xeexkat lañu waaye dagg identité bi moom mënoon naa ñàkk amaa nag dama fi jóge dem feneen damay dem jaar ci tribunal loolu moom da ko doon ndax ma Abdoulaye Niass daa gàddaayoon Sénégal dem Gambie maam Abdoulaye Niass dafa gàddaayoon Sénégal dem Gambie ca jamonoy tubaab ba te juyoo woon ak tubaab bi moo waraloon mu gàddaay Sénégal dem Gambie kon buñ demee ba léegi eh, sëtëb doomam dagg daan ti tiim sànni ne demay replier wu génn Sénégal dem feneen ah du bett ñe du kenn ndax amoon na maamam ji ko def waaye nag bul yóbbu bagage yi bari te bul dem fu sori ndax da ngay dellu siwaat ah, Cheikh Niass Mohamad Rida maamam la Cheikh Niass Amari Ngoné Ndeela Fall maamam la Cheikh Niass euh, tafsir Massamba maamam la Cheikh Niass Seydi Nourou Tall la euh, Cheikh Amadou Fouti Tall maamam la Cheikh Niass maam Aji Malik ibnu Ousmane maamam la ndax ñooñu ma lim ñëpp njaboot ak tafsir Massamba lañu te Kumba Kodde ak Ibrahima Kellil mag lañu te <coughs> ñoo meññ ñooñu ñoo meññ maam Abdoulaye Niass te ñoom sëti Masamba Caam lañu kon tafsir Masamba maami Cheikh Niass la <coughs> moom Sidi Aji Malik tafsir Masamba maamam la kon maami Cheikh Niass la Cheikh Omar Foutiyu Taal Tafsir Masamba la kon maamu Cheikh Ñas la eh, Muhammad Rida mi jóge woon Libi te ñëwoon fii ca jamonoy daf eh, ca jamonoy Amari Ngoone Ndeela te Amari Ngoone Ndeela dénkoon ko soxna eh, moome ñi ñooñu ci côté sa ma Samba Jay la lañ ko ma kon tamit Amari Ngoone Ndeela maamam la te Amari Ngoone Ndeela ku muy sa maam kon Euh, tafsir xaadi amar faal sa maam lay doon kon Cheikh Niass ci dëkk bi la dëkk xëy na bu toogoon wax ak ku xam da naa lu nekk mën naa nekk waaye bul gàddaay it bi dem ak moom waaye bu ko xotti mukk ndax yàgg-yàgg dil siwaat ndax lu dul jeex amul maam Abdoulaye Niass gàddaayoon na suulab teenam tas daaraam jëli dongoom dëkki Gàmbi complètement waaye dil siwaat na ba tey ba ja mel na meloon kuusi mbitti yéen mel na meroon ba kër ba mu dina bàyyi tey am na kon bu Cheikh Niass ne day gàddaay demu yoonam it na gàddaayee ni maamam gàddaayee woon rek dem ba jàmm am nga jël si daal mën naa nekk waaye xooti sa daan te génn réew mi moom munta nekk Cheikh daal booy dem bul sori te bul yóbbu bagage yi bari ndax da ngay jël siwaat histoire day répété